diggal def na ko teelum terey lum bay ñeent fukki kilomètre yu wér la Cerno Toola maa ko wër ko wax waxinu wér ngeen xam ni kooki kenn la xoolal nga xool xool mbay samaan këleen fettale moo fi daan bàjjo bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn la ba mu xëyee Mbàkke bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi mbokki jullit yi yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi bàyyi xel seen vet tv al azhar touba point di seen site bi nga xam ne nii moo leen di dajaleel xam-xam di leen ko sàmmal di leen ko tasaareel maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balwaq tey di leen baal di ñaanit ci sunu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu ñun ñëpp jéggal sunuy bàkkaar te xiir ñu ci ak njub te saxal ñu ci jaahil xadim wa isati sanadil maxdum sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñëwaat nañ ci seen émission Great Figures di seen émission bi nga xam ne dañ ciy waxtaane mag ñu baax ñi ak seeni jikko ngir gone yi man ca roy tey nag ñu tànn góor yàlla gu mag di imaam Thierno Birahim Ndaamal Daaru fas yéene ko àndak itam sëriñ Xalil Mbàkke nga xam ne ab sëtam la ñu tudde ko ko mu walbatiku bind ci moom mooy téere boobu ngeen di gis euh, téere bi sax mi ngi ko tuddee góor yàlla gi góor yàlla gi dafay mel ne mooy the great figure mel ne kon jël na turu émission bi tey kon mën nañ wax li arab di wax ne ataytal xawsa bariha jox nga xala gi ki ko yat maanaam mbir mi daal ki ko man jox nga ko ko ab sëtam la bind ci moom ñu tudde ko ko mu xam ci moom lu bari kon kooku ku ko jox euh, mu waxtaan ci moom yaakaar naa dinañ ci am lu kawe njortu incha allahu taala kon Serigne Khalil ñu ngi lay nuyu di la ziar Euh, di la dem ak ci yow ci question yi nga xam ne nii bëggoon nañ koo séq ak yow aju ci ku tedd kooku muy maam Thierno Birahim waaye liñ bëgg a njëkk a xam ci moom mooy ganek àddunaam ak ñaari way jur yi nga xam ne suñ boroom jaarale ne ci moom ganek àddunaam ak ñaari way jurum yu tedd yi nga xam ne sunu boroom jaarale ne ko ci ñoom loolu mooy question bi njëkk incha allah bismillah kilomètre yu dinaa ko wax waxin wér ngeen xam ni kooki kenn la xoolal nga xool xool mbay samaan këleen fattale bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen ziyaar jiital ci nuyoo bi mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw ci béréb bii Serigne Lamine Touré ak ñi mu àndal di waa Touba Lassar euh, point com ñu leen di nuyu bu baax di rafetlu seen seen yëngutu ci waar wi nga xam ne ci ngeen di yëngutoo muy liggéey Sëriñ Touba li nga laaj ci borom daaru nag moom woy juróom e, bu góor mooy sëriñ Mamour Anta Sali mooy e, woy sëriñ Touba nga xam ne ñoo bokk benn baay woy juróom mu jigéen di soxna Faati Isa Diop mu ne ci waa Kokki la bokk waaye wëlbatikuwaat bokkaat ak sëriñ Touba ndax maam maaram ci la sëtoowaate e, mu gane àdduna atum 1862 ci li gën a lëng ndax taarix moom wax yi day bari waaye poroxaan la àdduna ba bis bu delsee tasanteeg xare poos koto boobu déclenché ñoom ñuy ñibbi kooku ñuy wax poos koto defe naa Njabakunda foofa la leen fekk mooy bis ba bis ba delsee nga xam ne mooy tolloo bisum ngénte la mooy mooy mooy mooy moo leen fekk foofu waaye Porokhane fi euh, la gane àdduna ndax comme ni nga ko xamee Porokhane ñoom mag ñëpp euh, dañ leen a yóbboon foofu ci xare yooyu nga xam ne moom la Maba Jaxu doon def daf leen a jëlal ñoom ñëpp moo waral ñoom ñëpp ñu nekkoon foofu noonu mm, ci diir ba nga xam ne nag ca lañ fay jóge ni ñibbi siwaat nag demel ni boobu moo toll toll tombe ak gane àdduna <coughs> loolu mooy ci gàttal euh, taarixu gane àdduna bi mu a àdduna itam sëñ bi defal na ko ay bindal na ko ak téere mel na ni am na ci moom yaakaar daal wax nañ ci riwaayaat yu bari itam ci euh, xamal mu ni xam na ci ne bu moom mission bi muy war a euh, liggéey ci suñ borom moom mii mooy ki nga xam ne moo ci ànd ak moom jàppale ko ca ndax waxoon naa la Euh, xaddis boo xam ne Buxaari yi moo ko nettali ak beneen boo xam ne euh, Annasaa'i yi moo ko nettali wax ne ma ba'asallaahu min nabiyyin wala staxlafa min xalifatin illa kaanat lahu bitaanataani bitaanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa taxudduhu alayhi wa bitaanatun ta'muruhu bi sharri wa taxudduhu alayhi fal maxsuumu nag man xasamahu llaah mu ne yàlla mosul yónni ab yonent wala mu délégué koo xam ne moo koy représenté ci suuf muy xalifa xalifatulaay fil ard lu dul bu ñu koy entouré ci entourage am ñaari façon la ñuy doon muy entourage boo xam ne bu baax lay doon boo xam ne koo xam ne da koy digal lu baax di ko ci soññ ak keneen koo xam ne nag moom bopp ko fay bàyyi nga xam ne maanaam toujours ay intérêt am lay jiital donte maanaam la mu koy digal lu koy yóbbe leneen la itam waaye nag ki mucc mooy ki nga xam ne yàlla moom moom la yàlla nar mu mucc euh, rawaahul Buxaari yi ñu seet itam mm, yenn saa yi euh, mu wax ne man wali minkum euh, amalan fa araada bi bihi xayran jaala lahu waziran saalihan in nasiya zakkarahu wa in zakara aanahu mu ne koo xam ne ci yéen am nga mission boo nara dox te yàlla nar mu réussir faw dana la booleeg maanaam wasir mooy ku lay dimbali di la jàppale ku baax boo xam ne boo fàttee mu fàttali la bu fekkee fàtte woo itam ne ca ne mission ba mu ànd ak yow di la ca dimbali loolu mooy li Moussa ñaanoon yàlla <coughs> ci Haaruna bi nga xam ne mi ngi ko yebal ci Firawna ngir mu war a ja ja jàmmarloo ak moom mu mm, ne ko mm, mu nekk sama rëyt maanaam koo xam ne daf may dimbali doon sama aide de camp loolu kon mooy li nga xam ne ku jub jëm ci yàlla am liggéey liggéey faw loolu yàlla boole laa koo xam ne daf lay ànd ak yow di la jàppale ci loolu moo tax mm, sëñ Moussa Ka ne bu bu fekkoon tamit sëñ bi am Moussa la mu di mu dim Haaruna waaw bi rek yooyu la mbir nuroo na waaw ndax moom dañoo nuroo ay mbir bokkul lépp nga xam ne day mel ne lu sëñ bi xalaat rek moom fekk na moom loola ma nga ci xelam moom it lu mu nu mu xalaat rek nu ko xalaat day mel ne day dëppoog bi xalaate yàlla day def loolu ñoo xam ne day mel ni seeni mbir day dëppoo waaw al arwaaxu junoodun mu jënada waaw fa ma taarafat minha talafat wa ma tanakara minha talafat yi nga xam ne ñoo xamante woon ci alastu bi rabbikum yàlla dëppale seen i biir bu ñëwee àdduna itam day mel ni noonu lañuy ñuy bokkee jëmuwaay bokk ñu dëgg ñu dëgmal kon day mel ni ci benn àdduna gi ci gàttal xam ne buñ ko doon tënk jàpp ma ko cerno ko gor moo gër bar adi ak jërëjëf sëriñ Khalil ci leeral gu am solo googu nga xam ne nii leeral nga ñu ko ku tedd kooku leeral ñu ay waajuram leeral ñu tam nga euh, nekk àddunaam ak ya ca aju yëpp am na itam loo xam ne nii taalibe yi dinañ koy euh, wax waaye ñoom ñi koy wax sax xamuñu ko loolu tam bëggoon nañ ku ñu ca leeral maanaam tur yi nga xam ne nii dañ ko koy faral di jox lu mel ne Ndaamal Daaru am na itam ñu koy wax Koso ak Ibrahima ak Xalil ñeenti tur yooyu bëggoon nañoo xamit euh, lu ko indi ak lu ko waral. na gaañe wéy leen ba lu mbel ñuy górbati di jàpp at ya ca des la toj koso ak lu mbi dawal te koso teewul mu daal fi toju gaañu ko war ba ko bel waaw tur yooyu ñu ngi njëkk leeral te woon ko leeral ci tàmbali bi mooy moom woy juróom mi ngi ko tuddee Cerno Ibrahima Kan am na ñoo xam dañoo xam ne Cerno Ibrahima Saw ante sëñ Basiiru ante ñoom li ma nangoo ci moom nga xam ne bi ma defee téer bi man Cerno Ibrahima Saw laa bindoon ma wax ma ne ma Cerno Ibrahima Kan xam naa day fa doonoon wëla réew sëñ sëñ bu mag bi wëla réew sëñ Maamoor Anta Sali waaw ndax ñoom ñu daan tuddee seeni xarit ak ñu leen daan jàngal ak yooyu kooku nag dégg naa ku ku waar la wàllu yu mag la woon daal moom la ko tudde woon moo tax ñu di ko wax Thierno euh, waaye sëñ bi moom Ibrahima de mel ni moom la ko daan wooye waaw Ibrahima xam naa Thierno Ibrahima xam nga day mel ni lépp moom la ñuy wax day mel ni ñi ñuy wax Thierno ñëpp mel ni Ibrahima Ibrahima la ko sëñ bi wax lettre yi mu ko daan adressé yëpp Ibrahima lay bind mu ne Ibrahima euh, alhammu ñu ne kon sëñ Mbàkke Kajoor la ci jublu maanaam xam nga moom itam euh, noonu la tuddoon hmm, ñaari Ibrahima yooyu nag noonu leen daal xàmmee bu ne bu ne Ibrahima alhammu mooy mi nga xam ne bàyyi tax la woon ci moom ndax moom mook sëñ Mamoor Anta Sali ñoo bokkoon bàyyi mu ne ci géej bu baxee loolu rek moom la ci jublu suñ Mbàkke Kajoor bu fekkee nag deful kii boobu ñu ne maam Thiaro moo tax kon sëñ Ibrahima la ko daan wooye ñu la sax Ibra Faati Ibra Faati waaw Ibra la ko daan wax waaye ci lettre yi Ibrahima lay bind waaw Ibrahima Ibrahima euh, euh, li nga xam ne mooy yeneen tur yi ci des nag muy xalil xalil moom xam nga Ibrahima mooy xalil ndax wa taxasallahu Ibrahima xalilan jooju ci la ci la moom lañ moom moom moom la ñu ko tudd Ibrahima ñu di ko wooye xalil Euh, euh, koso ji nag moom itam euh, li ko indi mooy dafa amoon dëkk bu tudd koso mm, soriwul ak daaru nox ci moom ci kanam sëñ bi la ko sanc mm, dëkk boobee nag xam nga taalibe dañuy def bu ñuy bu ñuy wooyee kii si ab sëriñ ñoo borom nangam borom koso borom nangam mujj nag ñi ñu leen di tuddee bu ñu leen di wooyee ñu far jeem ci tur dëkk booba moo indi koso jooju noonu Euh, nga xam ne suñu mën a bàlle itam Karaacil dafa amoon dëkk bu tudd Karaacil ñu am géwél bu ko daan wooye benn taalibe géwél moo xam ne moo karaa Karaacil léegi loolu mujj nag ñi koy ñi koy tudde ñu leen naan Moodu Karaacil ba ci yàgg ñu ci Karaacil ji ñu naan Kara loolu moo indi moo indi moo indi moo indi tur noonu su ko defee loolu kon mooy cosaan li ndaamal dara yi tudd nga ko moom dafa doon koo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa gàtt la gënoon a jege waaye nag cër yi dafa jotoon nga xam ne day mel ni bu ngeen toogee nii day mel ni moom moo lay suddaal ci ci ci ci ni koy gisee. noonu mu nga xam ne njoolul woon nag moo tax ñu daan ko wax ndaamal daaru waaw ci lu ci mel noonu rek lay jóge ndax tur yi moom li ci ëpp ci dëkk yeeg ak caractère am moom ni meloo nag ak ni mu kii li ëpp sëriñ sëriñ noonu lañ leen di wooyee. moo tax kon tur yooyu foofu la foofu la sosoo daal waaw bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn ba mu xee mbàkke kajoor daa romb jabb romb las jaari mi ñam ma waru fa te booba gott la jërëjëf sëriñ Ibrahima Khalil ci leeral gu am solo googu nga xam ne nekkoon na question yoo xam ne nii taalibe yi yàgg nañ ma ko laaj ma ne leen nag xawma ci lu ma leer waaye tey moom yaakaar naa ne leeral nga ko ba mu leer naññi waaye tam am na loo xam tam bëggoon nañ coo xam muy ni mu teeloo teelee jekku alxuraan ak xam-xam du teel cee géeju lool euh, lool tam bëggoon nañ nga demal ñu tuuti itam ci euh, diggante njàngoom alxuraanam ak njàngoom xam-xamam. ku ma sa ñëw ak foo jege mu dar la nu jege. daan lay wutal tool bu jege naa la dëkkal fii bay la. waaw jërëjëf mm, sëriñ maam Mor Anta Sali daf ko boole ak maam Cheikh Anta. wax ma lu bari. jox leen sëriñ boo xam ne eh, ñu ngi koy wax sëriñ ñang daan jàngale alquran. moom moo moo moo moo leen jàngal alxuraan mm, diir bu gàtt moom sëñ bi jëlaat ko boole ko ak sëñ mag bi sëñ Tuubaa dama ko jàngal alxuraan ba mokkal jàngal ko itam xam-xam nga xam ne ñaari fànn yu ëpp solo ci xam-xam te mooy fiq ak tawhid moom moo ko ko jàngal yeneen matières yi nga xam ne nag dafay complété xam-xam nga xam ne boo demee ba bëgg mel noonu mel ne ay mel noonu. mu boole woon ko ak xaalima jaxate bu mag. moom la jàngee jàngee nag ba àggal nag nga xam ne Cheikh Khalil dañ ko daan mujjee jàng ndax xam nga dafa dafa gudd. téere bu rëy la moom suñu saa yi mosuma wax ne ma. Euh, mag ñi dañ daan bàyyi bu samp kër doog ko jàng bi ma koy jàng boobu laaj ndax ma ne ko euh, ma jàng ah, mag ñi dañ daan bàyyi ba samp kër suñ bàkk jaxate moom jaare moom mu koy jàng samp na kër ba nag kon dañ ko daan mujje bi mu bi yëpp nag sëñ bi boole ko ak Mor Baraama Jaxate moomu ngir boobu moom mu jàngi fa lool waaye fekk na boobu jàng na ba jaaxal yooyu yëpp te xam nga mag ñi dañ daan jublu euh, wër gi ngay wër nii pour gën a gën a gën a kiiral gën a gën a am ixtikaak bil aaxarin ak gën a wóorlu sa kii nga xam ne moom bi muy ñëw ci suñ Mor Baraam rek fekk na booba am na xasida gum def goo xam ne boo xoolee boo ko vérifié ci côté yu bare bari da nga xam ne moom jeexal na lépp booba ndax xasida gi rafet na rafetaay boo xam ne euh, booba man loola sa àllu àgg na la cheikhi hazal waqti sayidi jilihi salaamun faridun laa yu baara bi mislihi moo ko maa ngi lay nuyu yow yow mi nga xam ne yaay sangu sa sa maas gi nga ne kenn du rawante ak yow salaamun kala kama miskin wa wardin wa anbarin ala cheikh ibrahima misbaahi ahlihi nuyoo boo xam ne day mel dañ ko parfumé ak ward ak anbar mooy xeeti hmm, parfum yi gën a neex hmm, ni yooyu yoo xam ne nañ ko mélangé parfum yi mel noonu daal maa ngi koy jël di ko di ko jox euh, sëñ boobu nga xam ne mooy Ibrahima mooy Mor Baraama xam nga Baraama mooy Ibrahima mm-hmm. moom mi nga xam ne mooy làmp waa këram euh, boo ci jëlee bëy di gàtt rek xool ko ci ci ci côté balaaxa danga nga ciy gis mu nekk ci niveau bu kawe kawe mm-hmm. bu dee ci wàllu loo dangay da gis itam maanaam ni muy utiliser baat yi ak ni mu koy indee ak ni muy jàpp ne mhm. nga xam ne kii jekkoon na loxo bu dee ci wàllu xarut itam da ngay daal di gis ne jàngoon na arut ba jeexal ko parce que am na ci ci wooy loo xam ne gars yu bari dañ ci daanoon mhm. mooy booy booy def booy wooy dañ lay wax ne la eh, booy daaneel waru ko daaneele mhm. wala sinon boo koy daaneele day fekk am na xëccikaan bu ko jiitu bu loolu amul nag boo ko daaneele duñ ko jàppe raw yi waaye arabo ko jiituwaat moom la ñuy jàppe raw yi boo xoolee fi ne moom noonu la def ne ni misbaahi ahlihi dégg nga daal di waxaat zulmatu laylihi baxaran li saylihi nga xam ne laam gi moom la jàppe daaneel bi léegi xëy gi xaw waslu rek kon kon nga daal boo xooloo rek nga daal di xam ne automatiquement ne kon jàngoon na arut ba jeexal ko jàngoon na balaax ba jeexal ko jàngoon na nax jàngoon na yooyu yëpp waaye kon dafaa demoon rek ngir gën a rek maanaam def conquête yooyu mag ñi daan def ci sàpp xam-xam yu mel noonu rek kon day mel noonu moo doonoon waaye daal jàngoon na ba jàng téere yooyu yëpp jeexal ko sëñ bi samp ko nag muy jàngale ndax boo jàngee bu noppi itam li ci jàngale di tasaare sa xam-xam loolu dafa bokk ci li nga xam ne mag ñi dañ koo aada woowoon kon day mel ne ci njàngam daal bu ñu doon tënk jàng na ko li mu war a jàng lépp mu jàng ko xam ko naa ne wàllu yar gi itam ni mu doon tërbiyaa ni doon tër ni ko tërbiyaa loolu itam suñ bi daf ci def ci daf ci ko daf ci daf ci sonnewu lool ndax jàng mu àndut ak yar mm-hmm. day daal di doon ab coono ci borom jàng ba fa kasratul xilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal aza wa temps bi loolu suñ bi wax mm-hmm. buñ la jàngalee te yaruñu la rek daal lay indil ab coono wala si baxasa fi lu mu yéene rasulan minhum yatloo alayhim ayatihi wa yuzakkihim maanaam yonent bi daa ñëw di leen jàngal aaya alxuraan yi di leen ko firil waaye wa yuzakkihim itam mooy di leen tërbiya kon noonu noonu la war a ànde moo tax kon ñoom jiir bi ñu lay jàngal rek day mel ni jàng mi moom tërbiya gi ñooy ànd nga xam ne wattu alxuraan rek ni ko sëriñ Tuubaa daan waxee bu ne bu ne bu ne wattu na alxuraan lu ma ci moom dara ndax bu dee ab yar ku yarul du ko man bu dee ak muñ ku ku ku mënta muñ du ko du mën a wattu alxuraan bu dee nga xam ne di ko lim di ko lim ci ko yooyu nga xam ne kon day mel ni ki wattu alxuraan maanaam marxala tërbiya day mel ni da koy daal di jéggi ndax njàng mi day ànd ak éducation bi ànd ak yar bi moo tax kon ki jàng alxuraan ba mokkal jàng xam-xam ci milieu yu mel nii bu jàppal ne moom euh, tërbiye wu na ba àggal léegi xanaa kay li ñuy wax tarxiya moo tax sëñ bi nga ko bi turaqi xisbakal xofaaza al xisbul xofaaz ñoom lu ci ëpp nañ marxala tërbiya ba dugg ci léegi marxala tarxiya moo tax kon moom ci biir am njàngam moo ànd ak tërbiye gi sëñ bi di ko yaral boppam di ko bind ay ay ay noonu mu baaxoo def ci mag ñi mu daan nekkal ñépp la mhm. bind ay dénkaan yoo xam ne day da cay woon ni mu bëgg nga mel ni dana wax ne day mel ni lettre yi muy bind mag ñi ko kum ci koo ci gis lettre ba mu ba mu ba mu ko bind maanaam qualité yam ci wax rek jàppal ne mag ma noonu la mel mhm. waaw ndax day mel ne moom moom noonu ni mu la koy waxee rek ne la koy ne la lay yare ngay ngay kii noonu mhm. dinaa ci jukki euh, benn kii boo xam ne rek euh, euh, moom leetar la boo xam ne xam naa bi koy bind booba weesu na marxala tarbiya yooyu nga xam ne day mel ni day day mel ni li mu li mu li mu def ci moom ba noppi la ñëw di ko dëgëraalaat waaw ndax leetar bi mu koy bind day mel ni booba mu ngi ci géej gi lay nuru nga xam ne tarjumaan ji rek boo ko xoolee def ci wax ne Ibrahima la si lam yu xaalif ni laa fi si xari ñi wala fi kibar yi nga xam ne mosul mosul ak man du ci ak magam du ci ak ndawam kon daal di xam ne kon booba <laughs> mag la kon léegi daal di xam ne kon ñàkk a ak moom nga itam kon loola mooy mi lim doon def ci moom mi ngi mi ngi ci moom léegi nga xam ne kon day mel ni euh, leetar bi boo ko xoolee daa am yoo xam ne sëñ bi da ko defoon ci moom ba noppi leetar bi ñëw na ngir dëgëral loolee ak won ko ne ko mi ngi ci yow gën koo jàpp bu baax a baax xus xusma ataytu ko kon mina shakirin boo demee ci usul eh, fixlul amr yi nga xam ne yàlla daf koy da ciy wax ak yonente bi dañuy wax ni ci ëpp doonul loo xam ne daf koy digal ngir mu def ko waaye day ñëw ngir dëgëral loola yaa yoona bi taqillaaha taqillaaha xam nga taqwa mu ngi dèjà mi ngi ci yonte bi kon daf koy daf koy daf koy ñëw ngir joxoñ ko loolu di ko fàttali ak di ko di ko ci dëgëral waaye fekk na mi ngi mi ngi mi ngi ci moom waaye digalatu ko ngir mu def ko parce que def na ko ba noppi moo tax kon day mel ne lettre bii day mel ne photocopie la ci li nga xam ne moom la def ci moom ci ay jikko yoo xam ne maanaam mooy ñu tàmm ci nit ku baax wasiyatun tukasirul xataaya li kulli man yajtanibul xataaya li mu ko tàmbalee mooy daf ne wasi dénkaan la boo xam ne ki koy ci jaar dafay yàlla day paril ay mayam ne ko rumi tawaaduha li kulli muslimi tanju bila taraddudin min zulami del toroxlu ci jullit boo gis del wàcce sa bopp di ànd moom may ko ci sa bopp loo xam ne dana mën a jaxasoog yow mm-hmm. waaw ne ko zulla li ixwaanika li nasiha tanju minal baxdaai wal fadiha del ko ci say mbokk ak di leen laabire boo ko defee de nee na mucc ci ak mbañeel euh, ak gàcca ndax euh, woyof dafay loo xam ne dafay jikko yoo xam ne euh, yàlla daf ko bëgg ci nit ki waaye nit ñi bëgg ko ci seen moroom nit ñi li ñuy wax ni ki yanu li diis li woyof rek li bëgg a yem waaye lu diis moom boo ko boo boo kii rek moo tax koo fekk ku diis rek day day day metti ci nit ñi lool. moo tax yooyu jikko yooyu mu doon ko jëmbat ci moom. rawatina nag koo xam ne na ko bëgg jël teg ko ci kanam koo mbooloo moo xam ne daf leen di wommat yóbbu leen ci yàlla. kon kooku xaw jikko yi nga war a njëkk a def ci moom mooy jikko yi woyof ak ñàkk gis dara ci seen bopp. mu ne ko isa ataaka haduli kitaab yi fa karimil kitaab bil mataani bu fekkee gis nga sama lettre bi ma la bind téere bi nee na ko daal di ganale terale ko tuub dellu sa borom layin lisaanaka waxal baka ma lil muminina xayri xayriñ taj ma na nga nooyal sa làmmiñ waaye sa xolit nga nooyal ko ndax xol moom bu nooyee rek làmmiñ ci la ci lay wax di nooye sa làmmiñ na nooy sa xol na nooy ci jullit ñi ngay jaxasul ñëpp loolu boo seetloo euh, ku ñuy doxloo am mission rek mm-hmm. loolu dañ koy tàmm ci yow lool yàlla bi mu yónnee Moussa ci Firawna daf ko ne fa qoola lahu qawlan layyinan mm-hmm. waxal ak ñoom waxal ak moom wax ju nooy daal di koy wax wax ju nooy ni nga koy defe mm-hmm. fa qul halaka ila an xanaa doo ñëw ñu sellal la maanaam doo ñëw baax ilaa te sakka waaye boo boo bu fekkee nag daa ñëwoon rek daal ne ko il fahalaka illa an tazakka day daal di gën a ay jafe-jafe mu ne ko naa daytukal yow ma bi ibrahimu alim fatan yan famu tafhimu mu ne ko maa ngi lay woo yow ibrahima di la wax ne lépp koo xam ne euh, boo ko xamalee xamal nga amal ko njariñ na nga ko xamal te zakkiri in nafaati zikra fàttaleel bu fekkee fàttali am ne ko usika bi sabri wa bil ixlaasi li wàcc man liy jaada bil xalaasi maa ngi lay dénk nga muñ te sellal lépp looy def yàlla rek tax nga di ko def waaw salaamu zil jalaali wal ikraami ala nabi darajati kiraam loolu boo ko xoolee day mel ni mooy ruuxul islaam jikko yooyu nga xam ne moom la ko dig moom la ko won indiqué ko nga xam ne fekk na def na ko ci moom ba noppi mooy noonu rek la ko tarbiya di ko jaarale foofu di ko di ko di ko xamal ba connecté ko ci diggam ak borom waaw ndax ab sëriñ ku taalibe moom li ñuy jariñ mooy lool rek fexe ba diggante taalibe bi ak boroomam nga jubale leen ba am connexion euh, ba nga xam ne dootu déconnecté wu bukk noonu sëriñ bi waxee ne ka faytani euh, bi xifsikan fisaala wahabtali bi fadlika tisaala ka faytani bi xifsikan fisaala may nga ma connexion sama diggante maanaam sama digganteeg yow toujours dara lu fi dox musal nga may ci li ñuy wax déconnecté mooy li nga xam ne euh, sëriñ bi noonu lay ànde kii mi àggale ci yàlla waaw moom nag la ko def ba àggale ko ci àgguwaay ba nga xam ne wóolu na ko ci lépp wóolu ko ci njabootam wóolu ko ci taalibeem wóolu ko ci léppam ba bi muy jug di dem ci géej gi dénk ko njaboot gi nga xam ne dana ko sëriñ bu Basiiru nettalee ci meneen baax din nee na li nga xamee ne lettre yi diggante bi kii jokk jëlante yi bari na ba ba ba ba borom daaru dem ndar ba ba ñëwaat foofu ci jolof ak see suñ bi ne ko wax yi daal bari na bariwaay koo xam ne xam naa ne saabu bu rëy ak boroom doole ju rëy moo ko moo ko moom mooy mën a fóot maanaam tuuma yi ma fas wi mu sëñ Fall ak sëñ Moussa boobu ñëwoon ci kër ga mu ñaanal leen daldi wax sëriñ bi ne ko maam Thierno ne ko dénk naa la ngay jàngale ak bi jàng di ak bi di bay waaw boo fi toogee nag ba nga xam ne fii mënatoo fee nekk nga seeti beneen barab boo nekkal nga xam ne day mel ni loolu lépp maanaam xamoon na ko ci ci ci ci bi nga ko fi bàyyi bi ni ko tubaab bi jugale ak ak ak ak kii bi daanaka néew na mu nekk fenn te te déplacé dem fenn waaye loolu effectivement ni mu ko waxoon rek mi la mu ko jógee rek ñu fi daal tàmbalewaat bari nekk na fa ak ñoom daal anam koo xam ne anam gu metti la tumurank yu metti jërëb li sëñ ci gi lépp gàddu njaboot gi ànd ak ñi nga xam ne ñooy mag yi taalib yi fi nekkoon te ñooñu tam sëriñ bi defaroon leen ba noppi ci ñoom Cheikh Ibra Fall suñ mën dumbe wàllu seq njaboot gi mhm. ci dund bi ak ak ak bi ba sëriñ bi dellusiwaat ak li nga xam ne moom la bàyyi woon njaboot ga ñu ci wattu wutoon alxuraan mhm. ñëpp wattu mhm. ñu tolloon ci jàng yi itam seen xam-xam àgg murid yi yéegaat nga xam ne day mel ni baan ni mu fi nekk woon rek noonu même kii ba rek la maam Cerno sof

ñimeeb dogal xam la ko war wuute kun yónni la kersaaki taggil moo ko tamat wala rënel naam du xeeb du naw moo bari jom ñime te ku sell la dara du yóbboo fitam dara du tax mu ras bëtam wiitaay du wàññeek mum maam cer na jënn jëmm la aajo ju laa ko giseel diisoog ñam war a la digal def na ko teelum terey lum bay ñeent fukki kilomètre yu wér la Cerno Toolo maa ko wër dinaa ko wax waxin wér ngeen xam ni kooki kenn la